boobaa damay bàyyi journalisme ah, ah. parce que àddina ñett yëpp a ci nekk loo xam ne man mooy conduire sama bii mooy li ma a def li ma a def ah, ak ma jomba def li ma ragal a def nag bëriwut ndaxte li doomi aadama mu yàlla sàkk lu bind ko man Touré ragaluma ko mais dafa loo xam ne ruus naa ko def tey dafa loo xam ne jomb naa ko def bu ñu ne jomb naa ko def mooy bëgguma ñu tudd ko tudd ma tax na lu bëri bëri bëri bëri man Babacar Touré duma ko def duma ko wax duma fa dem ah, ah. su ma waxee loolu ba pare dama defe dafa am loo xam ne dama koy jundu saa su ne ci wolof te dama defe ne yéen leen li may wax dama ni le sort d'une marionnette c'est de disparaître à la fin d'un spectacle onze mbaa jàpp bu ñu ko jàppee feccloo ko ko lu ñu bëgg mu joué bu yëf yee jeexee dañ koy dugal ca kees ga tëj ko fa du ma xale doon naa dégg ñu naan xaayaan ku dégg séeréer xaayaan ku dégg séeréer c'est très important parce que Adji Raby Sarr a ngi nii joué lu nañ ko rôle boo xam ne moo ko dépassé tey ma ragal mooy mu këy jaar fa leneen fekkut parce que dégg ngeen ñoom seen bopp dañ leen gëmloo ni problème Ousmane Sonko ñu gëmloo leen juge Samba Sall bi mu génnee àddina ba léegi yàlla na ko yàlla yërëm ñu ne place am dañu juge nanguta dem foofu parce que dañu bëgg a dugal ci bopp nit ñi. Ah. ñu yëpp mystique la dañu liggéey nit ñi képp ku ci wax wala képp ci jege nga dee. moo tax nee nañu parce que dem rek encore ñu ne yaa xam léegi bañ na ndax li koy li problème bi mooy côté mystique boobu la ragal bu fekkee nee nañu juge yi dañu ragal ndax juge yi ku ci laal di nga dee. secondement ki nga xam ne mooy xale bi di Adji Raby moo tax tey fitna bii mu ne alerte laa doon def pour bu ko dara dal pour nit ñi bàyyi ko xel pour xamal ni ñu ko joué loolu boobu. dama ragal ñu ñu ñu ñu tracé ko lu ñuy wax le destin d'une marionnette. moo tax may ah. alerté li ci gën a am solo mooy man dama leen joxoon ñeenti information benn dama leen ne Adji Raby Sarr dafa tawat ba dañ ko amoon benn structure sanitaire bu ñu ko yóbboon di ko faj dama leen Adji Raby dafa génn kër gi ñu ko dencoon futu àllu na décollé na nee na dafa doy mun ñu ko tëj di ko dugal ci nekk pendant des années ah. pendant une année ñu naan ko procès bi procès bi parce que bu ñu dugg ci géej gi dañ ko newoon lu rak la rek dañuy da ngay wax rek ñu dem gendarmerie après jàpp Ousmane Sonko dugal ko ci kaso ah. gis na ni loolu nekkoon mu nekk ci guddi goo xam ne bët ba tey deuxième chose ah. troisième chose dama ne Adji Raby saa ba mu tawee kër foofu mu nekkoon dafa ah. daw ñu toog ci station Shell ba nekk yoon de euh, diggante yoon de comment on appelle Ngor loolu laa leen wax quatrième chose ma ne leen mu ngi Mermoz ci kër benn xale bu jigéen boo xam ne moo ko hébergé nee naa leen boobu ak léegi parce que moom dafa duuroo ak ñoom. Ah. je reste et je maintiens ces informations là maa ko waxoon maa koy waxaat. cinquième chose ne woon naa leen contacté nañu waa kër Ousmane Sonko di jéem a xool naka la ñu mën a négocier pour mu trouver force de somme bi ma génnee information ba tey ñu bëri bëri bëri woo nañ ma. jëm ci kaw Pastef ak lu bokk ci yeneen kaw parce que ñu bëri foog nañu ah. dama yàq loo xam ne ci yoon bu baax la nekkoon mais man encore ma wax leen ko bokkuma Pastef bokkuma APR man Sénégal laa bokk donc lépp loo xam ne dañuy indi ay problème Sénégal sama devoir la su ko gisee ma alerté ma wax ci muy lu leer dégg naa tamit nee nañ ma am na ay wëndëm ah, yoo xam ne fële nee nañu ñoom ñoo la joxe information pour nga wax ko nga wax ko waaw bu fekkee ne am na ay lëndëm yoo xam ne jox nañ ma information ñu ne ma Ablaye Ndiaye laal na si Ousmane dem laal na si. Ah, ah. Nogay Mbaye laal na si. Ah, ma wóor Nogay Mbaye mu wax ma ak kulaay taalaam li nga xam ne def na ko ak xam na ko ci. ma woo Ousmane Mbaye mu wax ma li mu def digganteem ak yàlla ma woo keneen mu confirmer ma ma recoupé ay nit ñoo xam ne war nañu xam ci dëkk bi lépp lu fi xew ñu confirmer ma loolu donc pour man loolu information bu fiable la. wallaahi. deuxième chose ma 2003 ak léegi 18 ans maa ngi def journalisme ah. naka la ñuy manipuler nit naka lañ koy waxloo nit man loolu su ma ko maîtriser tey kon mérité wu ma nekk journaliste kon ñooñu bi waxu caaxaan yooyu dañ ko teg fële. ñu dem ci li nga xam ne mooy xale bu jigéen bi point bi nga xam ne développé naa ko yëpp confirmé na leen ko nee na leen génn fu mu nekkoon te bii mooy énième fois muy génn parce que fu mu nekk bu ñu ko la xam ne day daw mu dem. Ah, ah. man li ma leen waxoon nee naa leen dafa meree ñi ko téewoon Adji Raby Sarr bu fekkee ne euh, moo doon wax démb ba na leen dëgg la fi ma nekk dama ko jóge te dama sonn di dox diggante waañu néeg ba ah. danañ ci boole tuus ba muy ñetti yëpp yoo xam ne autorisé nañ ko fa wala la fibb mu génn troisièmement daf leen def li nga xam ne mooy appel de détresse xaw ma nag ñu dañuy dégg parce que nee na leen ku ko mën a bëgg a dimbali dimbali leen ma ñu teg procès ma wax dëgg bi yëpp léegi ma wax dëgg bi yëpp parce que moom Adji bi Sarr wax na à plusieurs reprises tegal nañ ko émission spéciale mu Dakar ok nee na fa la waxee dëgg kooku bu leen nee tey ma wax dëgg bi yëpp c'est-à-dire que dëgg bi ba léegi waxagu ko te dëgg boobu nag loolu la nekkoon à deux doigts de négocier. Ah, ah. pour que mu mën ko wax mu bàyyi ko mu féex parce que xam na ni lii yëpp ay caaxaan la. wallaahi ma xamal leen ni ce n'est pas la première fois Adji bi Sarr jëm taxaw nii damaa bëgg a wax dëgg.

état de fragilité psychologique. Ah, ah. dafa disjoncté. il est prêt à tout lâcher loolu avons confirmé faire bu fekkee ne de ngeen déglu nit. Ah, dafa nekkoon ba euh, tantam jooju koy poser question am na question yoo xam ne aji n'était pas concentré à y répondre dafa naan répéter s'il te plaît nee na fitam moo dem parce que ñoom une préparation ba ma doon danaan li Babacar Touré wax yëpp du dëgg foofu def ma def ma mais aji a été courageuse hier elle a pris son destin à deux mains. léegi leen dama sonn dama sonn dama sonn te wax dëgg yàlla ñun waxuñu leneen lu dafa sonn dafa fippu li mu ko dëj defuñu ko dafa génn kër googu parce que bii man bi ma xam ci Adji Sarr bi mooy ñetteeli kër bi nga xam ne fa nekk xale bi nga xam ne moo ko hébergé ay mbokkam woo ma wax nañ ak moom dégg naa ko dégg naa seen kàddu man Babacar Touré du ma nitu fitna man Babacar Touré du ma livré kenn à la vindicte populaire

ñu gëmloo leen ni non li mu leen wax du dëgg ajira bi démentir na mais amul lu mu fi démentir au contraire li mu confirmé la parce que l' information capitale bi ma joxe mooy lan jóge na fi mu nekk l' information capitale mooy lu ci condition yi mu nekkoon nee na dafa daf ko doyal troisième chose bi nga xam ne wax naa ko mu mel nii ma nangu leen ko mel ni démentir mu ne dara jotu ko mais xëy ci Mawlaana ki nga xam ne mooy euh, Adji Sarr ah, ah. xam nañ ni gone bës la xam nañ ni elle n'a pas sa langue dans sa poche parce que loolu luñ ko tabaski bi génn bu mooy tàgg tantam bi di ko wañ ah, ak tous les moyens yi nga xam ne disposé nañ ko lu tax du ñu wooyee caméraman ñu tegaat ko def surtout ba ñu defoon ñu toogoon ñii ñu gis Adji Raby Sarr ci kanamam loolu du am parce que li ma leen wax dafa am bés bu mën naa juum nag man man Babacar Touré nit laa mën naa juum mais bés mu jógee siamam ma inventé leen wax eggal leen ko fii ci internet bi. ma ah. jàkkaarloog Sénégal ma wax ko. Ah. jour boobu dinaa bàyyi nekk journaliste. parce que dafa am lu ma jomb def dafa am mu jógee dafa am may seetaan. lu ah. bokkul ak yéen followers lu bokkul ak yéen ñi ngeen xam ne nee ngeen ni Babacar Touré wax rek dëgg la dama ci famille boo xam ne si tu ne peux la vérité.

peut-être loolu sax moo tax ma nekk li ma informaticien wala ma nekk nah, leneen wala ma nekk leneen. maa ngi jégalu ah. waa ma kan sama sama kii bi su ma rek li kaam. loolu laa bëgg loolu moo may def li may def ci ku la dafa tawat mu nekk nee na leen dara jotul waaye su dara jotul. Ah. doo nekk su interview boo xam ne organisé nañu ne nañ ci interview boobu ngay taxaw ci nit koo xam ne wax na la lu du dëgg. Ah. nga war a feeñal ay fen doo nekk interview boobu pendant dix minutes wala boobu lu ko weesu lu ko ko weesu nga xëy rek ne man damaa sonn sax ci wax bi nga coupé sa téléphone nga dem sa yoon. personne n'est à l'aise avec cette affaire mais le fait de pousser Adji mu génnaat encore mu mel ni dafay nekk en selle c'est la mettre en danger loolu man nekk ma ci loolu dañ ko ndeysaan pour la première fois ay nit woo nañ ma nee nañu ay mbokk aji rabi sarr parce que pour la première fois ñu ne ñoom sentir nañu li ma def d'accord ñu ci te it ñoom man maa di seen journaliste bu ñu fonkoon ñoom dañ ma ah. fonkoon ba démb démb li ma wax nag naqari na leen neexu leen ma di leen baalu ak parce que sama objectif nekkul loolu sama objectif mooy wax dëgg

parce que dégg dégg naa mu ne maa ngi si jàmm maa ngi ak sama famille nekkul benn dëgg nekkul ci famille am mu ngi ci Mermoz te ci ku nekk du ma wax parce que dig naa ko sañu sañu mbokk leneen ma ko def du ma ko wax man sama objectif nekkul kenn dem dóori Adji Sarr sama objectif nekkul rey Adji Sarr sama objectif mooy Adji Sarr mën a jàkkaarloo ak journaliste yi wala Adji Sarr mën a jàkkaarloo ak tribunal mu wax Sénégal njaay xamal li ni li ma waxoon diw ak diw ak diw ak diw ak taxoon ma de ma wax ko. Ah, ah. baalu leen ak bu ñu koy teg ay daan ñu teg ko daan mais bu ma lu ma gënaloon mooy Sénégal yëpp def comme Ousmane Sonko ne baal naa ko àq. dëgg la les familles des quatorze personnes tuées ñu ngi koy naqarlu. Ah, dëgg la ñu bëri ñu ci yàqule seen alal. lu du leen neex wax ji may wax. ba ci Ousmane Diédhiou mi nga xam ne moom moo jëloon këram. luwee ko maître El Hadj Diouf ak jabaram boobu Yacine Fall gars yi saxat saxatee kër googu ba tey El Hadj Diouf ak waa këram nanguñu defar nanguñu fay waaj yi këram googu pendant tout ce parce que bu ngeen dégg maître El Hadj di wax saa su ne yàq nañ sama kër dem nañu lekk fa salaat ak lekk pomme bi mu mel ni kuy théâtre mais en réalité kër googu Ousmane Diédhiou moo ko moom benn sénégalais bu établir États-Unis ba ba tey mu ngi seen ginnaaw pour ñu réparer ko ba léegi jusqu'au dernier ma amoon

man mu ndaw mi toog Ndakaaru ne leen mu ngi àttel endroit ngeen dem seet ko ba gis ko ci endroit boobu man su ma leen waxee ni Adji Raby Sarr fi lu dëkk ngeen mën ko gëm te les exemples foisonnent yoo xam ne kéem ñoo bi mu ci tegee tànk la ko réglé bés bu ma doxee nag ba nga xam ne man li may wax xaw ma ko man li may wax wóoru ma wallaahi azim jour boobu rus naa dinaa am gàcce continuer ñoo jàkkaarloo ak yéen di wax ak yéen man sama jëmm daal en tout cas du ma ko def peut être teewlu mën na exister mën na continuer parce que l'objectif mooy que teewlu continuer après man mais man Babacar Touré bés bu ma leen waxee dara ma seet ko ma ma wax leen ko ma ne leen man maa ci enquête man maa ci investiguer ñu ñu xool ne li ma wax yëpp dara nekkoo ci te mënu ma teg table bi li nga xam ne élément de preuve la pour démentir loolu ñu wax bu boobaa damay bàyyi journalisme damay dem defi leneen parce que mën naa defi leneen ah, ah. bokk yi loolu mooy li ma fas yéene woon li ma bëggoon a waxtaanee tey ak yéen di leen baalu àq di baalu àq encore et toujours dinaa baalu àq.